Bonsoir et bienvenue amis téléspectateurs, c'est votre quatrième numéro de Summertime. c'est toujours sur la 2STV avec votre équipe de choc ñu leen di indil xew-xew yëpp lépp nag euh, fii lañ koy wanewee tey nag c'est notre soirée spéciale rap galsen boo déggee loolu nag seen xel dem ci ñi nga xamante ne dañuy yëngal ñi nga xamante ne buubaa moo leen tooñoon ne leen ay pole na leen mais yéen a fi nekk dañuy jàll nag euh, ak Sanu dem ci suñu rubrique les lieux qui bougent mu yóbbu ñu fan stadium Iba Mar pour lan show of the lañ koy woowee te defe naa ne ni bu ngeen ko déggee seen xel dem ci nit dof un truc de malade ah du ma ci wax lu bëri bu ñu paree ci loolu nag jàll ak ki ñuy woowee Marie Odile mu yóbbu ñu ci suñu rubrique Sama School fan école Aslar ñu waxtaan ak élèves yi ci thème bi nga xamante ne moom lañu ñu indi tey pare si looloo ci. dem ci suñu rubrique guest star bi nga xamante ne yéen ñëpp moom ngeen di xaar tey dañuy ñëw wax yéen nag ci rappeur on reste toujours dans le rap hein c'est Paco Brise kooku la ñuy àndal waxtaan ak ñoom te duñu fàtte it euh, surprise biñ leen réservel ça se passe ici vous êtes impatient mais restez avec nous <laughs> on va passer à notre première rubrique dem fu ñu woowee stadium Iba Mar Diop sanu moo ñu fay teewal ñu dem xooli nag nit dof lan dafa nar ñu xool lool pool party. If I even the beach, me have to reach a summertime. Ah, ah. Hey. bonsoir amis de la 2STV c'est toujours un plaisir di leen servir nag di leen wan li nga xam ne moo xew ci biir dëkk bi di yëngatoo tey boo leen ma gisee xam ne maa ngi fii stade Iba Mar lan moo fi xew lan moo fi xew non yéen a ma gën a xam la xew mais maa leen koy wax li xew mooy the show of the year ak kan nit dof the killer killer bu yee maan tey moom xoolal rappeur la wala boog <laughs> ak sanu style nee leen seen émission sama time ak les lieux qui bougent man maa leen woon fii yëngatu te tey Iba Mar Diop mooy yëngu xoolal topp ma ñu xool wala boog meen bonsoir Mel. bonsoir Mel mais yaa ngi cool. maa ngi cool waaye naka affaire yi. sant. tey da nga ñëw si concert bi. waaw tey ñu def moo ñu fi indi ah mooy suñu rappeur. ah ouais. moo dàq rap nag Sénégal ba mu tey. déedéet xanaa. dafa leer <laughs> wax ma leer. yaa ngi sa émission sama time. léegi rubrique les <laughs> euh, lieux qui bougent. yaa ma bëgg nga yëngal tuuti. waaw mais affaire bi ki la ki la la loolu dafa leer wala boog. tey ci biir warul seet de. non kii yow xam nga ni mbiram du yomb. déggal loolu. ak ñi dof ki la. ak entrée bi nii dama tiit man. non yow. wala ci biir mooy daal. baabu dugg. jeex na kon ci biir mooy dàq dañu xuus jàll ci biir xool la xew kila kila nit doof kaani roof noqos di roqos man eh, wala boog be eh, nit doof bi la affaire bi braque zëb la dégguma dégguma wuta eh, la ñu jógee dañoo supporté attends attends attends ngeen ne fan ngeen jógee Matam MTM la ñu di supporté kila concert bi rek moo ñu indi attends attends attends attends tempo tempo léegi yow Fouta nga jógee sérieusement Fouta nga jógee ñëw. laa jógee ñëw supporter kii la on billaahi dañ ko fan LG waa Louga dañ ko bégal sama time sama time from 2STV dañ ko yàgg a seetaan billaahi dañoo bëgg sama time wim yaa ngi taaj ni na boolu midi flow yu saf saf na yàpp dibi cook buñ fi teg rek ma gàddu break now free samay laaf mën mais naka la. dama dugg ci biir yow laa njëkk a nga def nit dof. Diwane Sound. show of the nit dof moomatu ko c'est la fête du hip hop. donc euh, koo xam ne la il se donne du xaar kenn ci lenn di ñëw di teg lu mel nii. may gars yi fit donc euh, di ay stade moo xam dakaar ci région yi di ci def alalam di ko dundal teg ci di ko dund donc c'est tout à fait normal ñu ñëw participer ci fête bu mag bi muy show of the year donc looloo ñu fi indi support xam nga bëggee xam nga wane ne hip am na doole wane ne public bu mel nii c'est pas facile lamb ji lu ne lay daj dañuy seeti politique yi ñu jox leen ay cas pour feesal fii mais benn nit ñëw def ko hip hop yëpp mu nekk fête. show nit dof show hip hop Galsen la événement la boo xam ne rappeurs yëpp dañ ciy gis seen boob dañ ciy fil seen bopp c'est tout à fait normal ma teew fii donc euh, comme ni ma ko waxee fête la événement la donc ak il forcément la fi nekk ñëw def show ñëw bëggee jàpp si jour bi quoi sama time mooy émission bi bomb je moo ko wax ah man tàmb na la def naa la sama biir xol bi ne may xam naa ni yaay ki muy gis may seetu ne may yow rege juma kër oto bëgg wax ma ne may. ni doof moom ba sunu joow la quoi sunu grand la di ko ñaanal li muy jootu gën a kawe. show yi yàlla ci gën a def jàmm di gën yokk kàttan bi ak gën sa out yëpp nii quoi moo tax ñu ñëw teewal pour hip hop daal seen teewal may ko doole daal. yeah day dul day dul day tux ba dof day dul day dul day dul sangara lay fowe. tey daal gis naa fi Kaolack. waaw waaw waaw waaw dañoo ci loo bi fekk ci xorom noonu la foo dem fekk fa Kaolack. dëgg neexul euh, yaa ngi si émission sama time rubrique les lieux qui bougent ñu gis la tey si concert bi du la laaj sax lan moo la fi animé nag may compal tuuti rek. bien entendu xam nga dañu am ay événement hip hop yoo xam ne chaque année dañ koy def ci ay lieux yu wuute mais bu show of the year bi dafa bokk si gën a mag si événement hip hop yi yeneen nouvelle génération bi ñu ngi jéem a def Nit Doff c'est un rappeur qui est parti de rien pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui donc bu organiser événement day nekk feetu hip hop bi ñëppay dajaloo ñu def ko benn genre màggal wala gàmmu quoi ñoo xam ne ñun ñoo ciy dajaloo bëggee et puis consciemment quoi dans la dans la plus grande tranquillité dans la plus grande euh, nan laa koy waxee lucidité qui puisse exister. waaw sama time xanaa mu wax Pago rek ne ko mu fas jom te bàyyi daw liggéey tey ñëw indi émission yu parce que dañuy toog sama time sama time après ñu toog ba benn temps dootuñu ko gisati mais sama time bu jotee dañ ko war a teg. parce que sama temps boo ko dama lay dóor arrêt arrêt arrêt kenn du fooyee sama temps. mais sa yow sama patron war nga wax loolu dama lay arrêté. Paco bàyyi tux omo omo. eh. yow you know me am hip hop man you know man hip mooy sama affaire moo tax xam nga moo tax bu xew la damay ñëw quoi te kii la tamit sama best sama la you know am say moom ma daf ma sama time sama time that's why I do. jàmbaar jafe fi lool ci hip hop. loolu jafe na fi lool ci hip hop bëri jaay seen ngor jënde ko xaalis ndax bëgg business bu ñu yóbbu ci seen njaboot ba tey mbedd maa ngi teewal mbedd maa ngi wax ci dënn góor yàlla yi gëm real hip hop moo tax bu ñu wootee bu mu leen bu stade yi di fees tey ñu ngi stade Iba Mar est-ce que yéen a ngi fii let's do it go. doo bëre doo bëre ma kàpp ngir gi right now firi samay laam na kër ji man waa firi ci biir bu noppi nit ñi dang naa alif laam ba fer i ji dead sama flow so boy jël kaw nit ñi ashipe ashipe lay singing bone lay singing mekk lay singing kila kila bokkul ci jaasi yi iri yo it rock kani rock knock us the rock us man yeah oh oh oh wala boog sama nay moo di 8 Mo Flow aka the hitmaker non aka Joes. dégguma. aka Joes. <laughs> waaw mais ñu ngi lay ziar. delloo ziar. mais li xanaa style bu bees la. déggoo li ma loo xanaa. aka Joes. aka Joes. lu bees la lu bees la. new look. damay waaye génne album bu bees. exclusivité le 3 décembre lay génn incha allah. flow yu bees style yu bees. donc voilà ñu andi yeneen style. and euh, yeneen xeetu musique. pourquoi pas. parce que xam nga Edmond dafa ñëw tag yow musique bi ci benn niveau. gars yi fekk si ça c'est vrai. gars yi fekk si ko instant dama ko yóbbaat ci beneen niveau. dina ma neex en tout cas yaa ngi émission sama time rubrique les lieux qui bougent ñu ñëw tey fii concert Nit Doff gis fi Edmond Edmond la lay doxantu fii. déjà sama time dafa ma neex trop. ah ouais. ma ko prod maa dafa nekk loo xamante ne si dafa dafa fun. Et nous, nous beaucoup fun, you know? Yes, I. Et après ça aussi, euh, Nidov, c'est mon frère. Et c'est, c'est lui, Louloubès, Yagna. Chaque année, nous avons fait franchement, comme nous l'avons dit, on est, on est là juste pour euh, rafraîchir ce que nous avons euh, coloré. Parce que si vous voyez, rapport n'est pas arrivé. Donc on est là pour faire la fête. e lui, c'est une fête nationale, show of the year. Chaque année, nous avons fait ci stade bi day fees gars yi dañuy bëggee foore donc voilà et nit nit franchement maa ngi koy saluer di di ko gën a di ko gën a parce que c'est pas facile li muy def ni yombul di ko gën a encourager di ko ñaanal yàlla mu am kattan di ko def chaque année ba muy dépasser sax fi mu nekk nii incha allah. lan ngay wax nag euh, dafa am euh, sama temps yoo xam dafa fën stylé am rubrique bu tudd les ma bëgg nga tompal ñu as lëf. les les avec sa style. les ah ma ko quoi. ok bàyyi ma teg ci biir bi ci ah, yow. et moo man maa ngi biir sama time leel yëkki bouge nga def teew kon gis nga ni mu demee booy yow eh yow sama time mooy li xew. kon ne booy Ed Mo maa ngi nii ci biir sama time yaa know est que xam nga lii maay ki koy def cause à part moi personne ne peut faire ça et I'm out. yes I à part nous kenn mënul def sama time sama time ñun ñoo ko wala boog.

Cooler. Somebody get back to Jackson Jackson Cooler. Mama send a friend, yo. Yo, that's a carrier. Somebody rap a rap, yo. Represent the carrier. So there is a one. Yeah, yes, I guess. Everybody. Let's go. Take it back to the floor. I'm feeling. I'm feeling like I'm going to move. Break it down. Break it down. l'indépendance de la charge des Gaules. Le répondu a change dans nos fusils d'épaule. Ils ont pacifié l'histoire depuis les bancs d'école. är cool denna Du gör en resistad och lov och bara sakta Så får det någon jag bara på ett arbete Lapparna på din kan det plats på den kunden Les mises à sec dans l'élection truquée Téléguidée par les pays colonisateur Donneur de leçons Attaché de nos dirigeants Marionnette égalisée Je laisse la pluie L'objectif c'est de propulser la vie comme premier lot Des sommes intègres On est comme Sakara Le truc de l'Afrique l'emportera. On a le potentiel, mais il nous faut le Lumumba. Maintenant, arrêtons de nous mentir comme à chaque fois. Le problème de l'Afrique, c'est aussi nous, les Africains. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous de le faire, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, alors ñu gis Nit Doff di rappeur boo xam ne il est engagé kenn dootu ko présenté si mim réew chaque année muy def concert bu rëy the show of the year ñu gis fi artistes yu bëri mais gis ko moom lan moo waral concert boobu ñu ngi lay ziar avant tout. ziar ziar waa donc euh, comme ni nga ko waxee artistes yëpp ñu ngi fii c'est la famille. donc dafa def dafa dépasser concert Nit Doff c'est le c'est le rendez-vous de tous les rappeurs donc euh, ñu initier ko bi mooy septième édition. donc di sant yàlla comme ni nga ko waxee chaque fois muy réussir nit ñi di ñëw c' est grâce à tout le monde gars yi si jàppale les artistes les animateurs les mélomanes donc ce qui fait que ñu ngi sant yàlla bu baax quoi. lépp yàlla la ak euh, solidarité bi am autour de tout ça ku ci nekk def nga ci sa sa sa sa wax sa partage sa ñaax gaa yi donc bu réussir rek ñun ñëpp ñooy bokk succès bi ñun ñëpp ñooy bokk mérite bi quoi. sama time rubrique les lieux qui bougent ak Nit Dof tey fii wàcc na man mosuma gis bi concert bu mel nii ci àdduna. the show of the year pas comme les autres non mais tey Iba Mar wàcc na Aïcha nit dof the killer killer killer wàccee na Iba Mar macha allah ñu gis fi artistes yu bëri ñoom Simon Omzo Dalla képp koo xalaat ah gars yi yëpp wan nañ ne Iba la même famille donc euh, ni ñi jógee lañ ba Fouta ba Louga Thiès Mbour partout ak lu birik Paradise ñëpp ñu ngi woon ci euh, ci biir pour jàppale ki nga xam ne moo di nit dof et c'était total. Big up et respect à Nidof. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la 2STV. Boulen bouger. Nenal ak sama time. Euh, les lieux qui bougent avec Sanu Style. lépp lu leen réer maa leen koy wan wala boog ni lay demee saa su nekk tous les bras. comme vous l'avez si bien vu euh, stadium Iba Mar Diop euh, neexoon na rappeurs yi euh, ñëw nañu def nañu seeni ay prestations les fans sont contents tout le monde est content te it dañuy wax rek affaire de clash affaire de buzz la rek yéen a bokk yéen vous êtes tous ensemble gis ngeen la fraternité ñëpp fekk si nañu nit dof <laughs> nous allons passer à notre rubrique sama school dem foofu ñuy woowee école Aslar euh, ànd fax Marie Odile ñu waxtaan autour d'un thème euh, drogue au niveau des établissements thème bu très important parce que c'est nuisible quand même dama leen di bàyyi rek ngeen xool loolu Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Summer School de la 2STV. Aïcha, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Wagouniaï devant l'établissement Aslar avec pour thème l'effet de la drogue au sein de cet Allons-y. On est au sein de l'établissement Aslar. Comment tu Je vais bien. Alors, Pour toi, quelle serait la sanction euh, d'un établissement quand on retrouve de la drogue Le thème d'aujourd'hui est l'effet de la drogue au sein des établissements. Quelle serait pour toi la sanction de cet établissement si on retrouvait de la drogue euh, La drogue, c'est pas bon quand même, euh, surtout dans un établissement. Vous avez vu, hein, prendre quelqu'un, vendre euh, la drogue à l'école, hein, c'est pas normal. Hein, même dans le pays, c'est pas normal. Dans la capitale, Hein, la drogue aussi, c'est pas bon. Conjugue-moi le verbe mioler au présent de l'indicatif. Mio, mioler. Au présent. Je, je miaule, je miaule, je miaule, tu miaules, il miaule, nous miaulons, vous miaulez, il miaule. D'accord, merci chérie. Euh, pour moi, c'est simple, il faut juste fermer l'établissement et mener une enquête. conseil, euh, euh, je veux dire, euh, mener une enquête qui va venir sur la sécurité de l'école, premièrement, veiller à ce que l'école ne soit pas ouverte jusqu'à ce que l'enquête soit aboutie. Tu as parfaitement raison. Maintenant, à toi à répondre ces questions. Maintenant, pour toi, comment on conjugue le verbe miauler oh, au présent ou bien <laughs> bah, Même si ça n'existe pas, je, vais, je miaule. <laughs> je miaule. Il miaule, nous miaulons, vous miaulez, il miaule. Maintenant, le verbe pouvoir au passé simple. Euh, je pue, tu peux, il pue, nous pûmes, <laughs> il pute, il pure. D'accord, merci. Et encore, dis-moi, quels sont les habitants de Dubaï euh, Les Dubaïotes. Ok, merci. Euh, pour moi, il n'y aurait pas de doute. ça serait l'exclusion plus convocation des parents. Et aussi, il y aura une enquête menée par la police parce que la drogue n'est pas quelque chose avec, avec quoi il faut blaguer. Pour moi, la solution, ça serait que les parents, même s'ils si font un bon travail, qu'ils euh, suivent beaucoup plus les enfants, plus à l'essor des technologies et tout ça, que l'école aussi prenne en charge certains comportements qu'ils jugent, qu'ils peuvent juger parfois euh, inadéquat pour un élève. Maintenant, nous allons passer aux professeurs pour leur poser euh, ce même thème. Euh, qu'est-ce qu'ils en pensent On est toujours dans cet établissement avec euh, le professeur d'espagnol dans la classe de première L2. Comment vous allez Je m'appelle. Euh, je, je, ça, va, ça va très bien. Euh, euh pour vous, quelle serait la sanction euh, de cet établissement si on retrouvait euh, de la drogue chez, chez un élève ah, Je crois que ça, on ne pense pas qu'on parce que vraiment c'est une école qui, est vraiment, qui a ses règles, qui surveille bien ses élèves. Donc chaque jour, il y a le contrôle. Depuis 8 heures, vraiment, il y a une bonne surveillance au niveau de l'école. Je pense que la première sanction est que l'administration euh, sanctionne fort, fortement euh, l'élève avant même d'arriver au haut niveau. Concernant la, la drogue, euh, déjà dans le règlement intérieur, donc euh, que, tout, euh, que tout un chacun doit, doit connaître, maîtriser. Donc moi je me souviens à l'époque, donc dès le premier jour de la rentrée, on avait le règlement intérieur, donc il euh, fallait, le, fallait le lire intégralement. on sait que voilà, la drogue euh, n'a pas sa place euh, à l'école. Donc euh, voilà, comme vous l'avez si bien vu, euh, l'émission touche à sa fin. Les professeurs euh, nous ont conseillé, nous ont donné euh, leur point de vue et comme vous l'avez vu, cet établissement a une très bonne sécurité et ils nous ont répondu vis-à-vis -vis de ce thème. Et Aïcha, je te remercie. Hein, ah, tu vois, l'émission tout s'est bien passé. On a eu des élèves extraordinaires. On leur a posé des questions et ils ont répondu. malgré eux, on doit dire J'ai vu qu'il y, y, a eu certains défauts, mais bon, c'est pas grave. Les élèves sont comme ça, il y a des élèves assidus comme il n'y en a pas. Donc voilà. Et je vous remercie, on se retrouve très prochainement. C'est fini, mais malheureusement, on se retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc je vous dis bye bye et à très bientôt. <laughs> comme vous avez bien pu le constater Marie-Odile dalal nañ ko foofu ci école Asla mu waxtaan autour de notre thème bi nga xamante ne drogue au niveau des établissements la quelque chose de nuisible loo xamante ne baaxul si nit yi sàkkamtumalaax nag ci ndaw boo xamante ne da nga a jàng les élèves ont parlé de ça comme les professeurs il y a eu de bonnes conclusions et euh, c'était bien <laughs> dañuy jàll ci suñu rubrique guest star le nouveau phénomène du rap galsen Paco Briz lañ koy wax euh, te it dinañu wax ci carrière am ci ay projet am ci biir vie am ah. nañ jàllale loolu ngeen xam ci lu bëri. yaa salaamaaleykum euh, téléspectateur 2STV fidèlu sama time yéen a ngi am Paco Briz artiste rappeur euh, bu dëkk Yoff du label Jéegiraay aka Lebu. di di leen rafet di leen remercier si si si invitation bi voilà quoi. waaw euh, man maa ngi débuté euh, débuté sama carrière en en 2014 si la officialisé sama premier euh, sama premier single et depuis lors def nañ ay def nañ ay vidéo def nañ ay son officiel si si si si si Reverb Nation YouTube. Euh, Deezer ak SoundCloud foofu la son yi nekk ko bëgg mën nga ko dem download foofu depuis lors euh, def nañ ay son def nañ ay vidéo def nañ ay pas mal de concert actuellement ñoo ngi nekk di di waajal suñu projet ak waa Jéggi Raay DR hashtag pré album lay doon incha allah xam naa temps yi incha allah dina officiel di ngeen si am info yi nga xamante ne ni euh, moo ci war yëpp quoi. pour man man actuellement évolution laa mën a wax quoi actuellement évolution parce que bon. nouvelle génération bi ni euh, ñu ngi pousse pour man côté image côté style tu vois côté côté musicalité bi ñu ngi pousse ñu ngi viser aussi yeneen monde yoo xam te ne du Sénégal kese quoi bon du ma ne auparavant nekk ñu woon di viser international mais c' pas bëriwul woon bëriwul woon gars seen image yi ngay gis ne lii mën a jaay wala seen façon de musique ngay gis ne mën a jaay mais actuellement ak nouvelle bi nii bon di gis yoo xamante ne nii c'est c'est typiquement international ñu ngi viser si kaw pour génnee rap galsen si si si yeneen univers quoi te incha allah d'ici kanam rek gars yi nañ dégg rap si kanam te loolu mooy objectif bi actuellement bien vrai que Sénégal la mais bët bi teguñu ko teguñu ko Sénégal kese ñu ngi ko teg si monde bi yëpp pour euh, proposer monde entier bi rap galsen couleur am drapeau Sénégal flotté fépp incha allah. waaw euh, actuellement maa ngi officialiser six single kese actuellement. ak trois vidéos yu officiel quoi durant ma commencé ba léegi bon gars yi bëri naa mais nu mu demee nii moom amul projet amul dara quelques single rek la def après gars yëpp waaw foo tourné di dégg Paco lan moo tax juste pour leen pour wax leen ne liggéey mooy fay quoi ak chaque fois damay proposer euh, loo xam te ne qualité la bëgguma di proposer ay ay loo xam te quantité la quoi d'ici ma commencé mënoon naa génne ay projet comme sama morom ni ñu koy defee ngi yéeg fi ñu yéeg maa ngi dem si plateau yi dem maa ngi yéeg si concert yi ñuy yéeg maa ngi fay ko cachet yi ñuy fay ko ñoom sant yàlla la te bu projet bi bu ñëwee incha allah dina gën a augmenter wu dañuy viser euh, dañuy viser qualité di viser professionnalisme moo tax dañu am plan de carrière bu ñuy gérer te bientôt projet bi dina génn euh, son yi dina ratatatata King Lébu yaa ma gën a xam quoi. <laughs> waaw bon <clears throat> actuellement damay ñëw d'abord si sama vidéo yi am naa trois vidéos yu officiel bon boo koy suivre première vidéo 3D deuxième dama mère actuellement maa ngi génne col yi bëri na mais dëgg-dëgg ku ci nekk xam ki la mën. man mooy sama sama vidéo quoi pour man foofu la ñuy découvrir Paco Briz nga xam te ne nii moom loolu la war a prone si côté style euh, côté habillement côté rab boo gisee y'a pas photo c'est juste pour dire que ne amul amul amul benn benn benn benn benn bu la mën a comparé fii benn rappeur buñ la mën a comparé côté rap côté style tout man boobu sama vidéo la actuellement. am na yeneen yu ko gën a dóob te ñoo ngi ñoom actuellement sama favorite vidéo y a pas photo la parce que bon si la ñuy gisee personnage Paco Briz si la gisee sama sama intro si biir si euh, biir Rap Galsen si ñu bëri si lañ ma découvrir te am na yeneen incha allah yu ñëw yu gën a dóob quoi. <laughs> yeah moom actuellement amaguma jabar aw ma sax gel aw ma gel aw ma jabar instant bii maa sama projet ñoom laa si ñoom laa focaliser wu di ko job su ma amoon gel du ma nangoo team pro team team écran naan la aw ma gel donc ça veut dire que ne projet yi yeah mooy loolu quoi actuellement xam naa ay gel ay jawar loolu pour man euh, plan B la après day ñëw quoi boo focaliser aussi benn affaire pour man da nga siy dem à fond demuma si ak demi mesure voilà quoi mooy lool fan si team bi di béggee ñëpp voilà quoi sax bi moom sant yàlla quoi maa ngi sama projet ba si kanam kanam kanam après waaw yooyu ñu xool quoi après nu muy ñëwee <laughs> waaw projet bi euh, hashtag DR la mais DR dafa am lu muy signifié D bi lettre bi am na lu muy signifié R la même chose euh, dévoilé guñu nature projet bi tour bi aussi euh, dévoilé guñ ko dañ def DR kese mais am na lu ñuy xaar pour dévoiler ne DR lii lay signifié pour dévoiler track list yi wax date de sortie bi yàggatul incha allah am na ay big events yu ñuy waajal yoo xam te ne parallèlement ak projet bi lay nekk ay concert plein air ay fermé tout ñu ngi waajal quoi année bi di ñëw normalement maam année jéegira année Paco Brise lay doon incha allah projet bi dina am couleur dina am africanité comme man ni ma koy faral di prôné di di di prôné on essaie juste de montrer l'image de de l'Afrique mais positivement ak suñu façon de rap ak suñu façon d'image suñu façon d'habillement loolu dina feeñ si projet bi culture lébu dina feeñ si projet bi sénégalais Afrique world war fépp dina feeñ ci projet bi couleur yu bëri lay nekk incha allah DR loolu laa leen mën en en am na couleur am na lépp am na rap te viser univers bi yëpp nekkul Sénégal kese quoi. waaw waaw actuellement euh, actuellement bon relation bu ratax laa am ak nouvelle génération bi ak grand yi aussi bon am na si ay grand yoo xamante ne dañuy déggante téléphone dañ may dañ may solliciter euh, si ay affaires dañ may woo di ma conseiller si ay affaires yu bëri voilà pratiquement daanaka ñëpp bon du ñëpp sax laa miinanteel mais ñi ma si seexal jàmm samay bro lañ nouvelle génération bi particulièrement ñoom la gën a miin bon ñëpp samay gaayen la ñi ma jot a miinanteel ñi ñu fiilanteel ñëpp samay gaayen lañ ñu am bon comme li wax suñu may interviewé si nouvelle génération bi mooy li may lancé message bi rek mooy foog ñu continuer di def ay collaboration entre nous ñu bañ a dawante quoi ñuy def ay featuring entre nous ay collaboration euh, tu vois di a prôné euh, rap Galsen ci kanam parce que ak nouvelle génération bi nii je pense que buñ concentré woo rek buñ boolee benn benn benn cocktail boo xamante nii concentré wu na en talent différence façon de loolu noonu compilation yooyu noonu da ciy manqué euh, collaboration yooyu mooy manqué si rap Galsen en même temps ci ci bi ci yi loolu laay proposé gars yi contribution loolu la na gars yi commencé di def ay collaboration affaire yi nice man sama relation ak gars relation bu rataax la dañ filante voilà rap Galsen ci kanam Paco Breeze nouvelle génération bi ak old school yi yëpp samay bro lañ tu vois yee mooy loolu yee some freestyle <clears throat> ma may la benn 16 bar kon check tëbal ba ca kaw sa caaye naaw ra ngeen tàcc deke sama flow ak sama style la ñuy sàcc dekkil naa cosaan ak sama aadam maam te nga ne mrakis faaru mbaam teg ci tàngooru ñamu mbaam <laughs> fase naa gem bi ndax da di yaayu seex fii ñëpp nduroo teg ko sa tuñu kaw dem foog sa ful la jeex <laughs> non duu la neex kuul la neex demal ci kuul neex maa ko ñeex boole ma kuul la neex maa ko ñeex puis bruit king le bu déchiré ni pantalon tànguloo xam nga ni pankuloo diisuloo yaa ngi ci huit kilos giisuloo concert huit kilos istiloo tag nate bi nduloo kompuloo xanaa de tituloo jànguloo xanaa de tituloo ey ni nga ba fankuloo <laughs> léegi gaal seen daanu rap yeeyu béra no laajal projet bi keef ak six ak rek si tibra no yes sa no référendum ak oui ak no dama middle fingers up joué ci piano king la bu pay breeze Yoff represent Jégiraa represent yeah di bëggee sama time moo de la fin waaw di wax gars ñu ñu xaar projet bi ça va bientôt sortir incha allah DR Yoff Sénégal wóor waa projet bi dina ñëw def bruit Sénégal incha allah Paco Breeze la woon aka King Lebu waa di leen remercier si si invitation bi sama time forever 2STV yeah bro di bëggee gars yëpp Team di bëggee Jéggi Raay di bëggee gars yëpp ñi nga xam te ne xamee nañ ma si tele bi bra aka King Lebu Hey, eh, I don't ni ngeen ko gisee nag Paco Briz la woon waxtaan nax ñun euh, ci lu bëri ci biir carrière am ses débuts ba instant yi projet mi concert mi vous savez tout maintenant xale bi nee na nag euh, relation de couple xamu ko de rab bi mooy gelam xale jigéen ñi bàyyi leen ko nag mu liggéey. <laughs> jigoon naa leen connecté defe naa ne eh, jige bor la surprise du jour surprise boo xamante ne dañ ko dajji ci paquet ay boroom fecc bu bees nag lañ koy woowee demal mur ba ah nee nañu mu moo jëlee xam ngeen rek ki nga xamante ne nag mooy neexal fépp kookoo ko génnee dañuy jàllale lool di ngeen ree ba tas. Euh, mais nous arrivons à la fin de notre émission. Mais nous vous donnons rendez-vous, c'est chaque samedi Ça se passe ici sur la 2STV euh, avec l'équipe de Choc hein, seen équipe Sama Time euh, ñun ñoo leen di fiy nekkal di remercier waa Complexe 5 di remercier techniciens yi nga xamante ne ñoo waral lii yëpp et on vous souhaite un bon magal un magal pour tous les pèlerins zéro accident ah zéro accident dem leen ci jàmm ñibbisi leen ci jàmm te yàlla na ñaan yëpp nangu di leen remercier yéen ñi nga xamante ne yéen a fiy toog di ñu seetaan merci beaucoup. di remercier aussi ki nga xamante ne moo may solal ñu koy woowee chat euro borom Sandaga bu ngeen bëggee ci yére yi nag euh, sañse bi da ngeen di composé 77 556 06 06 je répète 556 06 06 bon magal guys def leen nank ci tali yi dem leen ci jàmm ñibbisi leen ci jàmm merci beaucoup. man maay Bakary Style man maay Bakary Style yeah man yow danseur contemporain traditionnel. dara fii tuuti. waaw nii nii xaar ma may la benn groupe. Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will. time. Ah, ah. Hey, every man say fi come along. Go for your sun tan inna the summer sun. If you want bleach and go back home, go for your umbrella 'cause the sun a burn. the young girl them a bring it down. In a bikini them in a pretty tongue. Oh oh, here we go. Summertime is here. You